profiter si at bu bes bi nga xamne fa lañu jëm muy euh, année deux euh, décembre 2022, mille ñaan yalla bu ñu duggé si année bi nga xamne mi ngi ci ngi ñëw muy 2023 bi lepp lo xamne ne nañ ko ci 2022 bi yalla nako tamu tamu doon ay bànneex ay mbektel yalla nañ ko yalla defal mu doubler wu multiplier wu alors si 2023, bi di ñaanal yalla wa medina di ñaanal yàlla waa euh, aduna bi yëpp alors di leen souhaiter meilleur vœu et une bonne et heureuse année une santé de fer vraiment ñep nek ci jamm yalla nek ñu si jàmm mais ñu wër ak wër le defal ko ñep defal ko également Dak medina parce que Dak medina damay wax ne organe de presse la bo xam ken amul sen fay yéen a ngi divulguer parce que wanewul saga saaga wanewul yéen c'est-à-dire que c'est question de moralité yeen da ngeen jox sur la morale Yalla na yàlla on est très content de vous.